mambay bëri na xarit ci réew mi. Mhm. bëri na ay ay ay ci réew mi mais buy dem day dugg ci otom ak chauffeur am ak benn garde corps am mu daw ndànk dem ma heure bu ñu ko convoqué foofu la koy fekk. c'est donc foofu amul problème alors que kële ñi mu àndal coalition yëpp 7 heures du la ñuy dem ne fa feeñ te xam ni du dëgg te ñu bëri ci ñoom nag liy dëgg ñu ngi ñaan yàlla mu daanu ba ñoom tamit ñu ñu ne vive le roi le roi est. comment ça vive le parce que maanaam ànd bi. ñi nekk foofu moo ko moo ko lal. ñi nekk foofu. le soutien n'est pas n'est pas. Euh, ni sax tout le monde tout le monde. le sait on est à onze mois des élections y a presque quatre ou cinq candidatures déclarées dans une coalition. Mm-hmm. loolu rek wane na.